fi wax ngeen topp ko loolu mooy li nga xam ne mooy li jaar yoon mooy li nga xam ne mooy tax ngeen dal di texe loolu mooy xam yonent bi xam lan la doon jàngale xam naka la doon dundee xam itam lan mooy sunnaam sunna boobu nag léeg-léeg moo am ci ay xaaj waaye bu ñu ko seetee jumlatan loo ci jëf rek sunna lañ koy waxee waaye day nekk li ñuy tuddee sunna sharciya ak sunna jibiliya sunna bi nga xam ne mooy yoonal mooy sa jaamu yàlla du baax mukk lu dul dangaa mel noona lu dul dangaa jëfee ni mu woone waaye am na sunna jibiliya sunna boo xam ne mooy sunna jikko maanaam moom yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ndax am la muy bëgg ak la muy bañ te teguwul ci sharia te lu ci gën a bari ñu ngi ci melale ci ay mbir bokk na ci moom ni mu bañoon a lekkee mbëtt yàqu mbëtt mu ne moom lekk ko amr ibnul aas radiallahu anhu laaj ko waaw dafa xaraam mu ne ko ah déet xaraamul de waaye nag man mii day sama bakkan de koo soppul te fa ma dëkk it amu fa loolu moo tax sama bakkan bëgg ko rek waaye lu dagan la de kon ci anam googu yow boo jàppee loolu du tee nga lekk ko waaye boo jàppee itam moom bëggu ko woon kon man itam bëgguma ko nga bugg koo def ak sunna boo xam ne day wéy ci ñëpp nag loolu mooy li ñuy tere waaye boo ko boo nee man itam sama bakkan bëggu ko rek nga dal di ko bàyyi te xaraamal woo ko te waxoon na yonent bi bëggu ko moo tax ne du sunna ngir lekk ko anam googu day nekk du ci nekk dara boo ko bàyyi itam du nekk lenn léeg-léeg ñuy melale itam yaani imaama def ab kaala ndaxte moom bokk na ci la mu soppoon doon ko def nga roy ko ca anam googa loolu itam day nekk sunna bu ñuy wéyali waaye boo jàppee nag laa budda ku nekk de ko war a def nag loolu day dugg ci cadre sunna jibiliya loolu du nekk loo xam ne dañuy woo ñépp nag ngir ñu def loolu ak itam al asa ne ñu ni koy nirale maanaam yore ab yet loolu itam daa nekkoon ci mbir yoo xam ne doon na ko def léeg-léeg nag am ci ñoo xam ne dañuy tënk ay mbir waaye demu fa nag benn wax joo xam ne dañ ko doon wax rek ngir jàngale lugal arabiya am ñoo xam ne dañ koy jël bu koo def ab xadis ci jamono dañ doon bugg a jàngale lugal arabiya nga bind lu bari loo xam ne wax ji day daanoo ci benn xaraf ñu naan man masha bi qadril asa bila asa faqad asa badiul asa anam gu mel noonu maanaa ku dox lu tolloog ab yet rek te yorewuloo ab yet dina fekk moy nga ci sàkk ñet waaye loolu nag moom jàngale arab moo taxoon mu jóg waaye nekkul nag ñëpp nag gàddu ay yet waaye nag boo ko ci sukkandikoo nag ngir sunna te yonentu bi sallallahu sappoon na ko doon la ko def rek te ñaaxoo ci nit ñi naa na nekk lu baax ci sukkandiku di dem naam ci anam googu loolu léeg-léeg ñu ciy détaillé sunna yu mel noonu waaye lépp loo xam ne nag sharia moo tax mu jóg nga ne sunna la rek kon yow sa diine leeru sa jaamu yàlla nanguuñu ko xatta sunna boo xam ne yonent bi de koo jàngale ci anamu jaamu borom bi subhanahu wa taala julleeg koorak asakaak ajak sëyag ngénteeg yeneen yu mel noonu nga xam ne ab sharia la loolu moom boo ko ci toppul nga ne sunna la rek dina fekk yow sab jaamu yàlla nangu wuñu ko ndax foog nga defee ko ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëfee woon moo taxoon mu wax ñu ne man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad képp ku jëf ak jëf te ndigal ba bawee ko wul fi man mu ne dinañ la ko delloo ndaxte borom bi subhanahu wa taala amu ci soxla boo demee nag ba xeet la mu doon def gis ne man nga lu ëpp loola ci beneen xadis yi dal di ñëw man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa rad diine jii nag ku ci sof la ca bokkuloon loolu moom du ci bokk mukk dinañ la ko delloo mu yóbbee ñu xissa ñett ña ñëwoon di laaj yonent bi ni muy jaamoo borom bi subhanahu wa taala ñu waxal leen ñu gis ne lii daal ñoom xeeb nañu ko kii nga xam ne yàlla jéggal na ko ay bàkkaaram buñ ko toppee ci na muy jaamoo rek ñun dañuy alku kenn ki ne man daal des ni ki tey sëy moom pare naa ndax des may tàbbe damay dem jaamu ji borom bi subhanahu wa taala nekk ruux baal wala mu gën a leer damay làbbewul maanaam sëy moom daal banaa ko soxna moom banaa ko ndax te daf may tàbbeel daf may tere jaamu borom bi subhanahu wa taala man damay jaamu ji rek ah keneen ki ne man daal nelewu guddi moom tàggoo na mag moom moom daal bu nit ñi tëddee nelew rek man moom damay taxaw di jaamu borom bi subhanahu wa taala keneen ki dal di ne lekk bëccëg moom tàggoo na mag moom man daal léegi damay saxoo koor rek ndaxte yonent bi ni mu mel borom bi jéggal na ko buñ ko royee rek du sotti yonent bi ñëw nett ñu nett li ko ko mu woo leen mu ne ah am nay doomu aadama yu wax de du noonu maa leen gën a ragal yàlla ana atqaakum billah maa leen gën a ragal borom bi subhanahu wa taala samay soxna kon nag loolu du tardel doomu aadama de te maa leen gën a ragal borom bi subhanahu wa taala mais damay tëdd yeewu def tahajjud dal di nelewaat maanaam guddi gi dinaa ci nelew dinaa ci jaamu borom bi subhanahu wa taala te koor gi itam kazalik dinaa woor dinaa dog man ragiba an sunnati falaysa sama doxalin bii nag ku ko xee ba bàyyi ko bokkatoo ci man te ku bokkul ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xaw ma nooy jaamoo borom bi subhanahu wa taala ba ñu nangul la ko ndaxte yeneen xeet yi bokkatoo ci tilka ummatun qad xalat laha ma kasabat wa alayha ma kasabat mu ne loolu ak xeet la jaaroon na fi dem na yeneen yonent yi dem nañu ñoom ak seeni doxalin foofa lañ koy attee yow bokkatoo ci yow ci xeet wii nga bokk kon nag boo jaamoowul ni ki nga xam ne mooy gindi xeet wi di jaamoo mu ne yow moom kon bokkatuloo te ku bokkul ci xeet wi du bokk ci ña nga xam ne dañuy texe kon ci ab tënk ñett yii këpp ku ko yeewoo seet ko seetantal ko xam ko bu baax a baax bokk na ca ñay texe léegi nag dina dugg ak ñun nag ci détaayeel ñu tuuti ñett yi nga xam ne tënkal nañu ko mooy xam sa borom xam sa diine xam sa yonent te teg ko ci ay tegtal nag mu dal di ñu wax nag fa ida qiila laka man rabbuk mu ne su la nit woowoon ne la waaw yow kuy sa borom kon mu ñuy dellul ci bu njëkk bi kuy sa borom faqul rabbi allahu alladi rabbaani wa rabba jamii alaalamina biniamihi wa huwa maabudi laysa lii maabudun siwaa mu ne tontu ko lii ne ko rabbi allah man day kii sama borom moom mooy allah kan mooy kooku alladi rabbaani kii nga xam ne mooma daldi sakk toppotoma walladi mana alladi rabbani mana dhalika alladi khalaqani wa razaqani wa arshadani wa lam yatrukni hamala mooy ki nga xam ne mooma sàkk awalan waaye gannaaw ba ma sàkk mu wërsëgal ma mu wërsëgal ma am xel mu wërsëgal ma ab dégg-dégg mu wërsëgal ma ab gis-gis mu wërsëgal ma ab xol boo xam ne mun naa jàpp ak iman waaye mu wërsëgal ma itam li may lekk ak li may naan mu musal ma itam bépp laago bépp jàngaro waaye mu may ma tawfiq ak wér gi yaram mu ne kii mooy ki nga xam ne moo ma amal mu ne na nga di yëg ne nag kooku nag mooy yeyoo nag ma dal di jublu ci moom moo tax mu ne alladi rabbaani ndax man dong la mu ne déedéet wa rabba jamii al alamina te mboole seen lu ñu sàkk nag fi mu jaar ak man la jaar ak loolu kon dinaa xam ne kii moo yeeyoo sant kii moo yeeyoo bëgg kii moo yeeyoo ragal kii moo yeeyoo jaamu lii yépp nag de koo def ngir lan ngir puukarewu ci man mu ne déedéet di ñaam ci ay xiwalam dong ak mbaaxam ndaxte ñun ñépp bu ñu taxawoon bañ a jaamu borom bi subhanahu wa taala du wàññi ci nguur gi dara dara moo taxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne gis ngeen yéen ñépp bu ngeen taxawoon ci benn dingire ngi ku nekk ne borom bi subhanahu wa taala lii laa bëgg mu ne mu jox la li nga bëgg ba nga ne doy na bëggatuma dara mu ne xam ngeen li muy wàññi ci nguuram gi ñu ne déedéet mu ne jël pusa dugal ko ci océan yónni li pusa bi di yóbbu daal xëj na lu mel noonu laay wàññi ci nguur gi mu ne yéen ñépp nag bu ngeen taxawal lànk itam yéen ñépp bu ngeen taxawal lànk itam du tax nguur googu itam dal di wàññi ku dara kon mu yéen ngeen jaamu ko ak ngeen bañ koo jaamu moo yem fa moom moom am na ñoo xam ne ñu ngi koy jaamu de même bu ñu bañ wa ma ya'lamu junuuda rabbika illa hu maanaam moom ay ay jumtuwaayam kenn xamu ko ku dul moom kon yal nañu dëppale ak tawfiq mu ne loolu nag cib xiwalam la wa huwa kooku nag maabuudi mooy kamay jaamu man yow nag jaamul ku la soob waaye man moom kooku lay jaamu kooku lay ñaan kooku lay muslu ci moom lay sukkandiku bu ma tiitee moom lay woo bu ma bégee moom lay sant moo tax mu ne wa huwa maabudi laysa lii maabudun siwaa aw ma keneen nag koo xam ne moom lay defal loolu kudul moom amul keneen maanaa laysa lii maaluhun xayra aw ma keneen ku may jaamu nag kudul moom fii nag dinañ dellu ci waxu yonent bi ak adi ibn abi xaatim yonent bi fi mu jàngee woon ci alquran wone ne ahlul kitaab maanaa jàpp nañu seen borom xam-xam yi ak jaamukatu yàlla yi borom xam-xam yi ak jaamukatu yàlla yi ittaxadu ahbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min dunillah adiine ko déet ñun borom xam-xam yi ak jaamukatu yàlla yi defuñu leen ay yàlla de yonent bi nekkul foofu di wax ne ahankay mu ne déet mu ne waaw yow adi bu ndax nekkuñ di leen digal ngeen di def hakay diglee kay dañuy def mu ne ndax nekkuñ di tere ngeen di bàyyi hakay mu teree kay dañuy bàyyi mu ne ndax nekkuñu di daganal ngeen ànd ak ñoom mu ne aha kay mu ne ndax xaraamalu ngeen ànd ak moom mu ne aha kay suñ ko ibadatu loolu mooy jaamu lan la ñuy defal yàlla leneen lu loolu maanaa nag bu njëkk bi du jubluwaay maanaa digle ñu def tere ñu bàyyi du loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jublu dëgg-dëgg la mu jublu mooy lay ñëw daganal ak xaraamal waaye bu njëkk bi lan lañ ciy seet ndigal ba ndax dëppoo nag ndigalu borom bi ak yonent bi bu dee waaw diglewul dafa fàttali tere ba ndax dëppoo na bu dee waaw terewul dafa fàttali bu fekkee safaanoona nag def nga li aaya bi di wax dina fekk jaamu nga ko def nga ko ilaahan mu ne nag tegtal bi ma leen di jox ci lii mooy waxu borom bi subhaanahu wa taala alhamdulillahi rabbil alamin borom bi moo ko waxal boppam alhamdulillah tur bu njëkk bi da ciy def alif walaam maanaam mooy mboole seen ak sant ak meloom ak yéppam mu ne lii yàllaa ko yeeyoo de ndaxte moo moom xeet wi sant boobu nag ñaari xaaj la imma nga jëfandikoo baatu alhamdu wala nga jëfandikoo baatu ashukru ñaar yooyu nag am na lu leen teqale lu néew boo nee alhamdu loolu jaamu borom bi subhanahu wa taala loolu war la foog nga def ko wala doo doon jullit sawaun bilmuqaabil aw biduni muqaabil maanaa defal na la wala defalu la te borom bi subhanahu wa taala ku ne am na lum la defal ñaareel ba nag mooy li ñuy tudde ashukru mooy defal nañ la dangay delloo jukkal dagan na nga defal ko borom bi subhanahu wa taala nga dagan na nga defal ko keneen ku dul borom bi subhanahu wa taala nit defal la ab yiw nga ne ko jërëjëf defal la ab yiw nga ne ko jërëjëf moo xam borom bi la nag wala du moom kon ñaar yooyu rek moo ko teqale kon jërëjëf bii mun naa bañ a nekk jaamu borom bi subhanahu wa taala mais mooy raddul misli mooy defal na la yiw nga koy dal di defal beneen yiw bu mel ni loola moo taxoon yonent bi mu ne ku la defal yiw rek fa kaafi uuhu mu ne yow itam fay ko defal ko beneen yiw mu ne yiw boobu nag mooy lan mooy jazaka allahu xayra mu ne munatoo ko defal leneen lu dul loolu defal na la ab yiw bugg nga ko itam delloo leneen lu mel noonu te amoo ko ne ko jazaka allahu xayra yal na la yàlla fay ab yool yal na la yàlla fay lu baax mu ne dina fekk defal nga ko lu tolloog lim la defal kon yal nañu borom bi subhanahu wa taala gindi ca la nga xam ne moo ñuy jëriñ ngir tënk mu ne ñu nag wa kullu man siwa allahu aalamun وأنا واحد من ذلك العالم من لب لدول يالا لنيو ساكنا من ني تاليب تيري بي دي لا ووتي لي نك من كين لا تي ساكيف دوبو maanaam man kenn laa ci jaamu yàlla yi kenn laa ci ñiy toroxlu kenn laa ci ñi nga xam ne dañu xam lu tuuti réeree lu bari wa ma utiitum min al ilmi illa qalila joxuñ leen xam-xam lu du- lu néew kon boo xamee ne lu dul yàlla rek lu ñu sàkk la te lépp lu ñu sàkk yeeyoowul ñu jaamu ko te moom itam xamul lawees ak lay ñëw la mu tolloo rek la xam te loolu itam lu néew la ci xam maanaam li ko wër nii rek la ci xam waaye leneen li xamu ci dara kon doomu adama bi mu xamee loolu dina jagleel borom bi subhanahu wa taala ak jaamu kon yal nañu borom boobu baaxee ba ñu xam ne moo yeeyoo jaamu dal di nangu jaamu ko te yal nañu jàppandalal niñ koy jaamoo اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا حسن اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا حسن اجتنابه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم mbokk yi borom bi subhanahu wa taala ak yi xiwalam ci jaami dajale nañu ci li nga xam ne suñu njariñ ci la ne te ñu ngi tënkoon suñu bind ci ne buñ la laajoon maa hiya al usul الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها وفو مهنني yooyu lañ jëlul yeew fa suñu dab maana buñ la laajoon lan mooy ñetti cosaan yi nga xam ne manta ñàkk cib jullit mu yëg ne lu war ci moom la maana walla maa laa yasa'ul muslima fi'luhu loo xam ne duñu may mukk ab jullit lu dul def na ko mu joxoon ñu tontu bu gàtt ne loolu boo ko xamee jëfee ko dina fekk la waroon ca yow def nga ko mu wax ñu ne maarifatul abdi rabbahu wa diinahu wa nabiyahu muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy jaam bi day war na xam boromam war na xam diineem war na xam yonent bi ñu yónni ci moom kon mu ngi mel ni ci ñett yooyu la suñu dars keroog nekkoon won ñu nag lépp lu dul borom bi subhanahu wa taala rek lu ñu sos la loo mun a xelaat nag lu mu mun a rëy sa kanam nag doonte du borom bi rek am na borom amma tey borom boobu mu ñu doon jàngal nga xam ne ci moom lañu war a toroxlu ci moom lañu war a sukkandiku ci moom lañu war a wut musluwaay ci moom lañu war a wëllu ci moom lañu war a ñaan ci moom lañu war a bëggante ci moom lañu war a bañante ngiram moo war a tax ñu def moo war a tax ñu bàyyi moo war a tax ñu bég moo war a tax ñu mer mu ne kooku nag nga xam ne doomu aadama munu koo peeg ci gis-gisam kon nag suñu dars tey mooy kooku naka lañu koy xamee moo tax moom mu allif bi rahimahullah mu dal di ñu wax ne fa ida qiila laka بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ممكن مؤلف بي من ñu sula nit deeyoon mu ne la waaw kooku nga may waxal moo yeeyoo jaamu noo koy xamee walla ci lan nga ko xamee bima arafta rabbaka naka nga xamee sa borom wala ci lan nga xamee sa borom mu ne laaj boobu ku nekk da ci war a bàyyi xel li muy junj foofu mooy yoon bi doomu aadama war a jaar ba xam boromam ban yoon la ndaxte yoon yi jaam yi di jaar ngir ne ñu ne ñu ngi wut seeni borom yoon yu wuute la waaye ban ci nag moo lay xamal borom bi xam-xam bi nga xam ne moo dëppoo ak la mu yoonal moom borom bi subhanahu wa taala xam na ñu ne yoon yi bari nañu jokkukaay yi bari nañu waaw ban nag moo xam ne buñ ci jaaree rek bi isinillah fa muy jeexee fa la ñuy fekk borom bi subhanahu wa taala mu ne loolu mooy xam sa borom am na nag ñuy xamle borom am na ñoo xam ne dañuy wax ne da nga ñëw ma xamal la sa borom ndaxte jaam moom dañ koy xamal borom bi ndaxte xamal borom bi mooy sabab ñu yónni yonent yi loolu mooy seen wazifa maanaa li ñuy liggéey seen fonction mooy xamal jaam yi kan mooy seen borom mu ne buñ la laajee laaj boobu nag faqul na nga wax ne nga tontu nga ne leen bi ayaatihi wa maxluqaati xamee naa ko daal ci kéemtaanam ak la mu sàkk boo buggee xam yàlla ci kéemtaanam yi ngay xool ak la mu sàkk maanaa la mu def la nga xam ne kenn manu ko kudul moom ak la nga yaakaar mu rëy sa kanam ka ko amal moo tax mu ne wa maxluqaatihi kon ki nga xam ne moom la jëmale wax ji bi maana e yow doomu aadama yow mii nga xam ne day doo texe mukk lu dul dangaa jaamu borom bi subhanahu wa taala waaye borom boobu ngaay jaamu na mooy kan noo koy xamee ban yoon ngay jaar jëm ci moom mu dal di ñu leeralal fii taxawaay yooyu mu won la ne laaj bii dañ ci war a bàyyi xel ngir nga mun a xam sa borom ngir nga mun a xam ki ngay jaamu ngir nga mun a xam ki la sàkk nga xam ne yemul ak kenn kon loolu boo ko xamee teg ko ci ay kéemtaan yu mu wone te keneen manu ko ku dul moom bu fekkee ku nar a texe nga danga yëg ne kenn yeeyoowul jaamu ku dul moom ndaxte moom ci boppam ci wàllu moomeel moo ci not mooy nga wéetal ko ci turam moom borom bi subhanahu wa taala ñu koy tuddee tawxid rububiya nga xelaat ne amal ak ñàkkal kooku moom dong moo ko wéetee amal ak ñàkkal te nga xelaat yi itam sañ-sañ bu mat moom dong moo ko wéetee ak wërsëgal ak ki dundal ak ki rey ak yooyu yëpp ni mu wéetee loolu nag noonu la wéetee itam yeeyoo moom dong ñu dal di ko jagleel jaamu dal di toroxlu ci moom xam ne moom ci boppam moo wone ay màndarga wone ay tegtal yuy wone ne moom dong na fi ne keneen ku dul moom sab nekk mu ngi wéy rek calam la may kon loolu ku ci bàyyi xel rek jëfandikoo lii nga xam ne mooy xel donte àndul ak gis-gisu sharia waaye xel bu mucc ayib bu xelaatoon ci mbir yu mel nii mbir yi muy tàmbalee ci boppam naka la def bay wax naka la def bay dégg naka la def bay gis naka la def gis dara bég ci gis dara mer ci dégg dara bég ci dégg dara mer ci naka la def lépp la mu xamoon mu denc ko lam ca bugg a génnee rek dal di ko xelaataat dal di ko génnee dal di ko waxaat bu buggee dencaat ko fa nga xam ne foofu la ko dencoon waaw mbir yu mel nii yépp nag mu daje ci doomu aadama waaw boo xelaatee borom bi subhanahu wa taala ci jëf-jëf yooyu kon kéemtaan yooyu mun na laa xacc nga gëm moo tax borom bi ne ñu wa fi anfusikum afala tubsirun ku nekk rek na xelaat ci boppam rek ni ko borom bi subhanahu wa taala defaree mu ne loolu rek boo ci bàyyee xel da nga mun a gindeeku xam yoon wa nga xam ne mooy yoonu njub ak itam jaaruwaayu yonent yi ak borom bi subhanahu wa taala la mu wax te du dëñ loolu boo ko seetee rek dina la may nga xam yoonu texe yoonu texe boobu nag ci jëfande ko xel lañu mu allif bi bugg a wax mu ne ñu wa min ayaatihi allaylu wannahaar walshamsu walqamar wa min maxluqaatihi alsamawat alsaba walarduuna alsaba wama fihinna wama baynahuma mu ne ñu wa min ayaatihi mu ne ci kéemtaanu borom bi subhanahu wa taala mooy guddeg bëccëg mu ne jaam bi bu seetlu woon rek guddi dal di seetlu bëccëg mu ne da nga yëg ne dëgg dëgg lii ab kéemtaan natt ba nga xam ne moom lañ ko natt hatta yaramu doomu aadama di yëg soppeeku boobu hatta garab yeeg ñax yeeg mbir mu ne di yëg soppeeku boobu nga xam ne bu bëccëg di jeex guddi di gudd di dugg nga gis xob yi commencé di daje di lemu mel ni luy fatu fajar buy jot nga gis ñuy fireeku mel ni ñu nar a xëy wa kadhalika doomu adama bi noonu la mel nelew ya ngay nelew ca bëccëg ak ya ngay nelew ci guddi lu benn borom bi subhanahu wa taala waxal ñu illa bu tax mu def loola mu won ñu ne lii nga xam ne mooy guddi def na ko ngir doomu adama yi dallu ngir doomu adama yi noppalu ngir doomu adama yi wéet ngir doomu adama yi jaamu seeni borom lii nga xam ne mooy bëccëg def na ko ngir doomu aadama yi yaxantu la leen di may ñu mun a dallu la leen di may ñu mun a tedd kon borom bi subhanahu wa taala def na séddale boobu moo tax mu ne ku bàyyi xel ci guddi ak bëccëg rek dina yëg ne kéemtaan yi nga xam ne duñu tarde te amul lenn luy yëngu ba nga yëg ko kon loolu da nga yëg ne ki def lii mu ngi fi ki mun a natt natt bii du yokk du wàññeeku mu ne kii da nga yëg ne mu ngi fi te da nga yëg ne moom ci boppam mooy ki man te sañ mu ne yemul ci loola mu defal la jant mu defal la weer nga xool jant bi ni mu wuteeg weer wi la muy joxe ci tàngoor ci leeraay ak lam lay jëriñ te amul lenn loo xam ne yow mooy joge ci yow ngir mu nekk sa participation te leneen lu dul loolu la ngay leerlu xoolal lim lay dikk ci li nga xam ne moom ngay war a joxe moo xam lamp boo xam ne électrique la moo xam lamp boo xam ne dañ ciy def batterie moo xam lamp boo xam ne dañ ciy sol pétrole lu mu mun a doon rek xoolal ba nga daree leerlu bu la doomu bu la borom bi subhanahu wa taala mayee nga dund lu mat juróom-ñetti fukki at mbaa téeméeri at boo seetee boo munoon a dajale la nga xam ne loolu nga fay ci niitu da nga gis ne borom subhanahu wa taala am na ngéneel ci jant bi nga xam ne moom la la defal doo fay dara te lim lay jëriñ ci wàllu niital la mooy li gën a tuuti ci li nga xam ne mooy ay jëfam mu ne loolu bàyyi ci xel jant bi jóge fi guddi ñëw mu indil ñu weer leer ga dal di wute la muy joxe dal di wute taar ba dal di wute mu ne yooyu yépp itam man borom bi subhanahu wa taala maa leen ko defal kon war ngeen ci bàyyi xel mu ne yooyu ay kiimtaan am na yeneen yoo xam ne nag de koo sàkk mu ne lu mel ni asamaan yi di juróom ñaar dara téewu ko te xiwal bu ñu yaakaar yépp fa laay jóge mu ne lii nga xam ne mooy suufu juróom ñaar dara teewu ko suñu dëkkuwaay yépp ci moom la lu la xatal yépp nga delloo ko ci moom lépp lu la xatal nga gas suuf dal di ko fa denc mu dal di ko soppiwaat defaat ko ab nginil lépp lu la xatal moo xam lu xesew la moo xam sobe la lu mu mën a doon nga gas dugal ko ci biir suuf moom mu deferaat ko mu nekkaat luy deferaat suuf bés boo jëfandikoo kooku nga am ci loo xam ne mooy ab koom ndox moo xam ne da laa xatal bu duggoon ci biir suuf dem deux mètres rek boo ko jotaatee génnee ko mu nekk ndox mu set ndox mu laab moo xam ne mun nga koo jëfee kon yooyu mu ne loolu itam dañ ci war a bàyyi xel moog asamaan ñu dal di communiquer njariñ mun a génn mu ne yemu fa ak lépp loo xam ne mu ngi ci diggante ñaar ñooñu ak li nekk ci seen biir ak seen kaw mu ne yooyu yëpp boo ci xelaatoon rek da nga yëg ne dëgg-dëgg borom bi subhanahu wa taala am na kàttan waaye moom ci boppam am na itam sañ-sañ waaye dëgg-dëgg kooku moo yeeyoo ñu jaamu ko moo yeeyoo ñu ñaan ko moo yeeyoo ñu sukkandiku ci moom moo yeeyoo ñu ñaan ko njub moo tax ñu gis ki doon xamle borom bi subhanahu wa taala te mu seet jaam yi ni ñu koy joxee ay wujj mu ne lii daal doy na waar kon doomu aadama jàdd na yoon mu dal di ñu wax ne فوا عجبا كيف يؤصى الإله أم كيف يجهده الجاهد من دق دق دوين وار فوا عجبا من دول دوي وار واو نكلا نيب دف ba ñeme mooy borom bi subhanahu wa taala ba ñeme wuute ak ndigalu kii mu ne lii boo ko seetee doy na waar de mu ne woon la boobu naka la nit di def ba dégg fànnarlu kéemtaan yi ba dégg fànnarlu càkkeef gii mu sàkk te kenn mënu ko mu féttéerlu ne xamul borom bi subhanahu wa taala wala mu féttéerlu ne am na keneen ku mun a wuutu taxawaay boobu mu ne lii day war nañ ciy bàyyi xel de mu ne boo seetloo walillahi fi kulli tahrika wa taskiina abadan shahidu mu ne ñeel na yàlla ci lépp lu mun a yëngatu nag doonte xob bu fàkkee ci kaw la dam ci suuf lépp lu mun a yëngatu ak lépp lu dal te yëngatuwul mu ne loo ci xelaat rek mu ne day seede kattanu borom bi subhanahu wa taala ak nekku bennam mu ne boo seetee wa fi kulli cheyin lahu aaya تدل على أنه الواحد وفي كل شيء له الآية تدل على أنه الواحد من لومنا خلال رك دين لون تكسا لبنى برم سبحانه وتعالى كيان ملا لومنا خلال رك من لو جس لوم توتي توتي دونت أب يوب لا رمب لا moo tax borom bi subhanahu wa taala mu ne man mii day bu leen yaakaar ne rus naa def misaal ci yoo li may màgg di kilifa yépp rusumaa def misaal ci yoo waaw xoolal yoo ni mu néewee doole te bu la jamee rek nga jóg xoolal loolu rek te dëgam boobu bu ko dugalee ci sa yaram rek dina muucu ab deret ba mu dal di ko génnee te loolu ni mu nooyee waaw naka la amee kàttan xotti sa yaram wi ba mu dem lu tuuti loolu nu mu amee bën bën boo xam ne mun naa muucu ab deret mu dal di ñëw yaa ëpp yoo doole waaye munoo ko munoo matt doomu aadama muucu ab deretam mustaki ndaxte sàkkee wuñu la ngir loolu borom bi subhanahu wa taala mu ne xoolal rek weñ nga yore dara di ko lekk rek am lu ci weñ këf loo muusaka waane munoo nangu la mu këf mu ne lu nekk di nga ko def waaye munoo koo nangu de kon nag yéen xelaat leen waay ah mu ne du fa taalibu wal matlub mu ne képp koy yaakaar ci moom yéen a bokk néew doole mu ne kii yaakaar ci keneen ak a néew doole kañu yaakaar ci moom moo ko gën a néew doole ndaxte ka nga yaakaar ab ab weñ rek bu nangu woon ci moom dara bëccëg bi yëpp dina ci topp waaye mënu ci dara ab weñ weñ rek buy dem hakaza ah kon nag mu ne xelaat leen loolu rek ab kéemtaan la boo xam ne borom bi subhanahu wa taala def na ko ci lu ne kon ñu bàyyi xel am keneen ku ñu wax ne تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك من تأمل من جل واي باي الخل كي غنچاخ جي بروم بي سبحانه وتعالى سخال ci kaw suuf te nga xool xoolu settantal jeexantalu labour bi sàkk buur bi la mu sàkk rek ab jeexantalam mu ne kooku boo ci bàyyi woon xel rek da ngay xam ne kii moo màgg kii mooy buur te kii moo ke- yeyoo dëgg-dëgg ñu dal di ko jaamu mu ne bàyyil xel de uyunun min lujaynin shaaqisaatun bi absaarin hiya dahabu albayku mu ne boo bàyyee xel dëgg dëgg dëgg dëgg ay bët yoo xam ne mu ngi koy melale ci lépp loo xam ne moo am xaws yaa ni lu mel ni ab weer ni muy mel maanaam bëtub doomu aadama yi nga xam ne borom bi subhaanahu wa taala moo ko defar sàkk ko dal di ko xotti dal di ci def ay per yi nga xam ne ñooy gis te li ñuy xool lu ñu mun a gis la dal di ko ràññee xam naka la mel xam couleur bi nu mu mel mu ne mu nekk ay bët yoo xam ne ah boo ko settantaloon da nga gis ne lu am njariñ la lool te lu jaam mun a sukkandiku la ba xam kàttanu borom bi subhanahu wa taala naka yooyu ak yeneen yu bari yoo xam ne ah, topp na ci ci mel ni gàncax yi nga xam ne def na ko mu nekk ci gàncax yoo xam ne seenib njariñ seenib meññit seenib cafka loolu yépp dafa wuute mu ne loolu yépp day day seede lan lay seede bi ann allaha laysa lahu sharikun mu ne yooyu yépp day seede ne waay waay kii amul morom lii nga xam ne mooy gàncax googu ñuy defee sukkar nga ji ko ci benn bërëb jifat taatu kaani nga roose leen benn ndox nga yëy lii mu indil la suukar nga màtt lii mu indil la lu weex kon kii nga xam ne borom bi subhanahu wa taala ak kàttanam la waaye nekkul lan fa sotti wala yeneen yu mel noonu kon mbir yu mel nii mu allif bi mum ñuy woo mu ne doomu aadama bi dafa war a xelaat dëgg-dëgg bàyyi xel ci mbir yu mel nii mu dem ak ñun nag ci ay tegtal yoo xam ne mooy assam iya ndaxte liñ doon wax yi yépp mooy tegtal yoo xam ne mooy albasariya aw maquula tegtal yoo xam ne da ngay gis dal di xam wala da ngay jëfandikoo ak xel dal di génneeku mu ne léegi nag bàyyil ma indi la tegtal yoo xam ne mooy waxu borom bi subhanahu wa taala nga déggi ko ci say nopp nga dal di ko takk ci sa xel mu dal di ñu wax ne borom bi sax moo ñu won ne yooyu ay kéntaan la mu ne ñu wa min ayaatihi allaylu wannahaaru walshamsu walqamar laa tasjudu lilshamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladi xalaqahunna in kuntum iyaahu taabuduun ci suratu fussilat borom bi subhanahu wa taala mu ne ñu wa min ayaatihi bokk na lu loolu rek loolu mooy li gën a néew waaye am na ay kéemtaan yu ñu xamul sax ñun mu ne ñu wa min ayaati bokk na ci ay kéemtaanam moom borom bi subhanahu wa taala al laylu wa nahaar lii nga xam ne mooy guddi ak bëccëg wa shamsu wal qamar jant bi ak weer aw lii nii la mel kat kon yeyoo na kat ñu barket ci yeyoo na kat ñu dal di ko jaamu yeyool na kat ñu dal di ko jagleel benn mbir boo xam ne gannaaw mum ñuy jëriñ ñu jagleel ko loolu borom bi ne déet bul xelaat loolu laa tasjudu li shamsi wala lil qamar mu ne bul jaamu weer wi mukk bul jaamu jant bi ndaxte amoon nañu doon jaamu yeneen yu mel noonu moo taxoon ibrahim alayhi salaam ba nga xamee ne ñamu dëkkal ay objet la ñuy jaamu imma samp ab xërëm di ko jaamu walla boog xool jant bi di ko jaamu mbaa xool weer wi di ko jaamu mbaa xool ab biddiw ba léegi loolu des na ba léegi am na ñoo xam ne dañu koy jaamu jaamu ragal walla ñu jaamu ko jaamu gat nga ndaxte léeg-léeg nga dégg ñu ne am na weer boo xam ne duñ ci takk sëy am na ñu bari léeg-léeg day lënt lan moo waral loolu ndaxte ci weer woowu li ci gën a bari am na benn biddiw boo xam ne day fenk ñu ne leeru biddiw ba du dugg ci néegu siit looloy sabab ba moo tax heure boobu ñu ne déedéet duñ ko def kooku mu ngi jaamu ab biddiw ci ragal mu ngi jaamu ab biddiw ci ragal moo tax ibrahima alayhi salaam woon na ne lii du dara mu dal di toog rek gis ab biddiw mu ne yee sama borom a ngoo xool leen ko kii mooy sama borom gis ngeen ni mu leeree ndaxte ñoom am na ay mbir yu ñu takkoon ca biddiw yooya ibrahima alayhi salaam xam na ko ñu toog tuuti biddiw ba ne mes mu ne oo mas man lu may doyee borom boo xam ne day feeñaka dem lu ma koy doyee kii du sama borom de mu gis weer yu ne gis ngeen kii moo gën a leer moo gën a màgg sama borom a ngóob mu dal di dem mu ne hee borom bi boo ma jubalul rek ma bokk ci ñii nga xam ne dañuy réer mu xool ab jant mu ne mu ngóob nag moo gën a màgg nag kenn mënu koo weddi nag borom baa ngóob ba mu demaatee mu ne leen man kat dem naa bàyyi naa lépp lu ngeen di jaamu maa ngi jëm ci sama borom bi subhanahu wa taala ma dal di ko jaamu kon won na leen ne lii ngeen di jaamu kat lii yeyoowul jaamu ndaxte luy ñëw ak a dem kon kooku boo ci sukkandikoo ab jafe-jafe lay indi mu des lan mu des xërëm ya mu ne dinaa leen tëralal pexe waaye ban pexe lay tëral gannaaw ñoom dañuy xool ay biddiw di wax mu ne bàyyil ma jaare leen ca la nga xam ne loolu la ñuy def ñu taxaw rek moom mi mu téen rek di xool ci kaw rek di xool ci kaw rek mais mu yàgg mu ne leen man de wéruma tey daal wéruma munumaa ànd ak yéen ci li ngeen di def ba ñu demee rek mu toj xërëm ya bàyyi fa benn ba ñu ñëwaatee ñu ne ki def lii suñu jaamukaay yii day kii day tooñ na mu ne ah am na ab xale bu fi nekkoon de di leen tudd di wax yeneen ak yeneen mu ne indi leen ko ci kanam yépp mu dal di seede ndax li mu bëgg mooy iqamatul hujja woon leen ne li ngeen di jaamu du dara ñu indi ko ci kanam yépp ñu ne ndax yow yaa def yi suñu yàlla yi mu ne aman yéen daal yéen tam nag xanaa da ngeen maa bugg a tooñ nag waaw kii ponkal bii kay moo leen sant ñu bañ mu rey leen laaj leen ko su fekkee ne man na wax ah yéen a ngi semmeñ bi ci moom kay moo jëfandikoog ñoom rek nanguwul am fu mu jaar ak ñoom ñu dal di noppi ba mu yàgg ñu ne ko dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg nag ñun ñii xam nañ ne ñoo tooñ ñun ñii xam nañ ne ñoo tooñ de ñoo jël lu yeyoowul waaye nag foog ñu sot foog ñu sot ñu ne Ibrahima xam nga ne kat lii du wax xam nga ne lii mënul wax mu ne mbas ma yéen nu ngeen di jaamoo lu mënul wax waaye nag sot sotloo ak parparloo li mu ñaawee rek ñoom ñépp ñu dëppoo ne ñu ne ah kii daal harriquuhu wansuru alihatakum ne kii daal lakk leen ko rek sotal leen seen yàlla yi kat gis nga kon nit ki du gis ab dëgg su fekkee ne ab sot sotloo ak parparloo moo dal di nekk ci moom kon ibrahim alayhi salaam won nañu ne yàlla dong nga yeyoo jaamu bépp objet boo jël rek doy na waar moo tax umar ibnul xataab radiallahu an mu ne këpp ku xamul ak ceddo sab jaamu yàlla dina lënt mu ne damay xelaat dal di ree mu ne ba ñu nekkee ci jaahiliya ku nekk day jël ab xërëm mu représenté ko ca kaaba ba mu jël beneen xërëm boo xam ne da koy teg ca këram mu représenté ñële pour ñu mun koo jaamu léeg-léeg buy tukki day jël ab tàndarma ñu dal di ko woru defar ko mooñ ko def ko lu mel ni ab xërëm loolu ngay àndal ndax di ci barkeelu boo demee feneen mu ne léeg-léeg nga dem ba xiif rek dal di lepp yàlla boobu dal di ko lekk ngir boo dellu see mu ne gis nga kon ceddo ga ceddo gi moo muuroon loolu doo ko gis waaye yàlla mu ciy lekk ajiib waaye ba mu génnee ci loolu nag ba gis ab leer mu gis ni dëgg dëgg dëgg dëgg doomu aadama bu gëmul moo doyadi loolu lañu borom bi subhanahu wa taala mu ne gis nga doomu aadama bu gëmul dëgg dëgg moo doyadi ndaxte yaxsabuuna kulla sayhatin alim humul adu lu yëgu rek mu dal di tiit ci moom xoolal rek bokkaalekat ni mu sonne lu ne ci aduna sóoraale na lu ne bokkaalekat ni mu sonne lu ne ci aduna rek dal dina ko sóoraale te ku nekk ba muy dund ca ceddoga bu xelaatee ya mu doon def xelaat ko bam ci génnee day dal di nekk mbir yoo xam ne ndeysaan yu doy waar la ah ñi dund ci ceddo gi ba léegi bu naree tukki foog mu wuti genaar goo xam ne dafa bóof ci ay nenam mu seet ban ban boor la jublu buy génn këram génnee boor booba wala buy génn dëkk bi génnee boor booba ndax mu ne ganaar boobu daa xam daa am ay rawxaan su amul ganaar bu xool benn garab boo xam ne day bett picc ya rek sànni ab xeer seet bu ñu naawee fan la ñuy jëm mu dal di jëm côté booba xoolal coono yi nga xam ne lu ko indi jaahiliya ndaxte ci mbir yooyu lañu doon dund loolu moo tax fii nag borom bi subhanahu wa taala di ñu woon ab leer mu won ñu ne nag jant boobu li muy rëy yépp day yeyoowul de weer woowu li muy rëy day yeyoowul de biddiw yooyu li ñuy rëy day ye- yeyoowul de moo tax abu tammaam abu tammaam ci bokkoon na ci dawlal abbasiya li nga xam ne mooy njabar daa xawoon a fés ba ki nga xam ne moo jiite bu buggee def dara sax njabar yi ñëw ci moom ñu ne ko déedéet loolu bu ko def de loolu bu ko def mu ngi mel ni ab protocole la ñu yore woon njabarkat yi ñoo ko yore ni mu meloon ci nguuru firawna kii nga xam ne mooy mu'tasim billah mu nekk na koo xam ne ku dëgër la ku dëgër léegi nag yéeféer yi dal di song jullit yi benn dëkk dal di ko taal dal di rey ñale yóbbu jigéen ñaag xale ya mooy amuriya benn jigéen nag bañ ko jàppee di ko yóbbu rek mu dal di yuuxu mu ne waa muqtasima mu ne maa ngi woo njiitu jullit yi mu jàpp ko yóbbu def ko ab jaam léegi ñu koy nettali di ko nettali di ko nettali di ko nettali muy dem ba ñu nettali ko muqtasim billah mu ñu ne ko jigéen boobu daal ndeysaan dañ koo këf rek mu ne waa muqtasima ba ko waa ji nettali rek mu ne ko labbayka mu ne wuyu naa ko danaa dem danaa dem ñu ne ko ah déet biddiwu sangam ah biddiw boobu fu mu toll bu ñu demee xeex du baax
nga jëm boolaa ngay dugg am na looy wax am na nooy duggi moo xam ba ngay génn am na looy wax am na nooy génni boo déggee mbaam ŋaax am na looy wax boo déggee ginaar sab am na loo wax boo déggee xaj baw am na loo wax boo pakastaloo am na loo wax boo gisee lu la tiital am na looy wax boo gisee loo yërëm am na looy wax boo gisee lépp loo xam ne loo bëgg la am na looy wax kon lan la la desalati kon desalu la dara xej na kay li ñu waxoon la du ñu mooy yàlla lu dul ci riir xej na yaa réeree yooyu nga jël waxuma sàmbaag waxuma dembaag géntu maalikak lu kenn xamul nga dal di ko dajale waaye bu du loolu moom diine bii nga xam ne mooy millata ibrahima alayhi salaam bu leer naññ la borom bi ne jaamu boobu mu allif bi ne jaamu boobu nga xam ne dañ koy sellal wa bidalika amara allahu jamian mu ne lii nag la yàlla digal mboole seen doomu aadama wa xalaqahum lahaa lii moo tax mu sàkk mboole seen doomu aadama kon doomu aadama yi sàkk nañ leen ngir yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam xatam déedéet borom bi dee du loolu la wax mu ne moom sàkkuma kenn ngir kenn au contraire yonent bi li ko indi mooy yërëm ñu yàlla yërëm ñu moo tax mu wàccee yonent bi yónni ko wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin kon contraire bi la ñu waroon a wax dañu waroon a wax ne xeet wi yërëm doomu aadama yi moo tax ñu sàkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la ñu waroon a wax waaye ngir ne yonent bee tax ñu sàkk ñu déedéet aaya bii moo koy dal di leeral moo tax mu ne ñu fii ne wa maa xalaqtu l jinna wal insa illa li man di sàkkee wuma jinne ak doomu aadama ludul nañu ma jaamu ludul nañu ma kon sababu yonent bi déedéet yonent bi dañ koo sàkk ngir na jaamu dañ koo sàkk moom ci boppam ngir na jaamu lépp lu ñu teg ci ñun rek teg nañ ko ci kawam wa ziyaada ba ñu yokkal ko ndaxte moom gudd julli guddi lu war la ci moom waajib amma ñun mu nekk lu ñu sopp ci ñun kon moom am na luñ ko teg ci façon jaamu yàlla ñun teguñu ko kon wax jooja nekkul wax ju ànd ak dalil waaye wax ji ànd ak dalil mooy doomu aadama moom li tax ñu amal ko rek mooy na jaamu borom bi subhanahu wa taala féeg mu ngi koy jaamu di sellal jaamu boobu nag li taxoon ñu amal ko mu ngi ci jaar kooku mission am doxal na ko bu demee wuyu ji borom bi subhanahu wa taala te koy jërëjëfal mu ne ko li nga defoon leer na baax na yërëm naa la bu defee au contraire nag dañ ko waxoon ne li la yóbbu woon ci aduna moom defoo ci dara kon ku deful dara nag ci liñ ko santoon yeyoo na ñu dal di ko yar wala ñu dal di ko bugal wala borom bi subhanahu wa taala bu ko soobee mu dal di yërëm ko soobee mu dal di def safaan ba yal nañu yërëm muallif bi mu ne wa maana yaabuduun ci aaya bi illa li yaabuduun mu ne maana yaabudun fii mooy yuwaxiduun ngir ñu kennal ma ñu xam ne man maay kenn ci man-man ci sañ-sañ ci kàttan moom borom bi subhanahu wa taala mooy kenn kon bu ko booleeg lenn bu ko booleeg kenn bu ko méngale ak kenn moo taxoon mu ne ñu ngellawaay ngellawaay bu leen jël ay nattaango di ma ko wutale man yemuma kenn walam yakun lahu kufuwan ahad moom amul ba mu bañee yàlla ak foofu nag la dal di leeral yoon wi nga xam ne moom lañ koy jaamoo mooy allahu wahdahu moom dong dong yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ku ko fekk ci keppaaru kaaba bi di ko tàggu ne ko ah suba dey bu soobee yàlla ak yow bëgg na ma tukki inchaa allahu wa shi'ta yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tudd màggaayu borom bi subhanahu wa taala mu ne ko tudd naa màggaayu borom bi subhanahu wa taala ataj'aluni lillahi niddan ah dang maa bugg a yem ak yàlla nag dang maa bugg a def moromu yàlla inchaa allahu wahdahu su soobee yàlla moom dong kalimatu shaa maanaa coobare kooku duñ ko lënkalee ak lenn ku dul borom bi subhanahu wa taala wa ma tashaauna illa an yasha allah munu leen mu soob leen dara am lu dul mu dajeeg coobare borom bi subhanahu wa taala kon li ñuy faral miinal ko suñuy làmmeñ su soobee diw kooku bokkaale la boo xam ne bu ñaawa ñaaw la te day màbb ay jëf moo taxoon borom bi subhanahu wa taala mu ne gis nga ñiy jëf loolu bu ñu demee bés penc dañuy dal di gis lu ñu yaakaaruloon ndaxte amaan na moo la daqaa julli fuuf amaan na moo la daqaa jaamu borom bi yàlla borom bi subhanahu wa taala fuuf waaye léeg-léeg mu wax kaddu bokkaale la mu dajale woon ak sa néew mu dal di tas ndaxte borom bi ku bokkaaleeg moom rek mu dal di màbb say jëf mu ne ñooñuy def loolu nag yaxsabuuna annahum yuxsinuuna sun'a mu ne yaakaar nañu ne ñu ngi jëf lu rafet mu ne waaye jëfuñ lu rafet de jëf lu rafet mooy xam borom bi subhanahu wa taala moom dong nga man attante sañ mu ne ñu fii wa aazamu ma amara allahu bihi attawhid mu ne nañu yëg ne li gën a màgg ci li borom bi subhanahu wa taala santaane mooy wéetal li gën a màgg ndaxte du nangu jëf lu dul wéetal daa am nit ki lu mu mun a jëf rek ndem wéetalul borom bi subhanahu wa taala du ko jëriñ dara moo taxoon borom bi leeralal nañu ci alquran mu ne képp koo xam ne jëf na lu baax moo xam nag min zakarin aw unsa wa huwa mu'min ku jëf lu baax moo xam góor nga moo xam jigéen nga te ba nga koy jëf yaa ngi gëm dinaa ko dundal ci aduna bi dund bu rafet bu baax bu neex bu texe bés penc ma yërëm ko kon sart ba mooy lan wa huwa mumin fokk rek mu dal di am iman am dal di tawhid boo xam ne bu tegu ci yoon la kon tawhid moo gën a màgg ci li borom bi subhanahu wa taala digle loolu itam li ñu koy leeralal mooy taxawaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi bañ ko yónnee ak ba mu génnee aduna ñaar fukki at la ak ñett ñaar fukki at ak ñett ñaar fukki at ak ñett yooyu jàngale na fukki at pas-pas fukki at yu mat sëkk yonent bi la muy jàngale mooy pas-pas bu leer rek nettali pas-pas yu yàqu yi nettali ca wet ga pas-pas bu leer nettali kàccoor ya nettali ca wàll ga ñi juboon te dal di baax nettali xeet ya nga xam ne alakoon nañ leen nettali ca wàll ga seen yonent lam leen waxoon ñu bañ dañu dal di leen alak nettili safara aki mbugalam aki musibaam nettali ca wàll ga aljanna aki xiwalam aki rafetaayam loolu yépp ngir jàngale lii nga xam ne mooy pas-pas bu leer boole ko nag ak ay misaal yu baree bari mu jox ñu benn misaal boo xam ne dañ ciy war a bàyyi xel mu ne misaalu ku gëm yàlla dong ak misaalu kuy bokkaale moo taxoon mu ne ñu yàlla dóoral nañu misaal boobu daraballahu masalan dóoral nañu ab misaal misaal boobu lan la rajulayn ñaari nit lañu kenn nit ki moom fiihi shuraka mutashaakisuuna wa rajulan salaman li rajul hal yastawiyaani masala mu ne ñaari nit a ngi nii laa leen di jox misaal kenn ki moom ay patron yu bari la am te ñoom ñépp a yem ci moom sañ-sañ te patron yooyu itam déggoowuñu ñu ngi xaccoo benn waa ji xanaa buñ doon misaal misaal bu gën a jege mooy kenn kuy liggéey ci kër te fekk ka muy liggéeyal am na ñeenti soxna xam nga soxna yépp ñoo yem ci ki nga xam ne mooy liggéey ci kër gi waaw ñeenti soxna yooyu itam déggoowuñu amaan na juboowuñu faf ñuy xaccoo ki nga xam ne mooy liggéey bu tàmbalee lii mu ne boo noppee nga ñëw defal ma lii wala muy eh boo noppee nga ñëw def nangam loo def yow lii nga def kat baaxul maa ngi laay xaar de mu ne hakaza mooy bokkaale kat mu ne ki nga xam ne mu ngi bokkaale noonu la mel ndaxte du yàlla dong laay ragal dina fexe bégal yàlla dina fexe bégal keneen ku dul yàlla dina jaar fee dina def yi mu ne coono yooyu ak kenn koo xam ne benn patron dong la am kooku dong moo am ci moom sañ-sañ keneen amul sañ-sañ yónni ko amul sañ-sañ tere ko amul dara moom kooku kenn rek dong la amal affaire mu ne ñaar ñii hal yastawiyaani masala mu ne ndax ñaar ñii dinañ yem misaal mu ne abadan ko këpp ku xelu xam ne ne ñii yemuñu misaal hakaza mu ne lii mooy misaalub kii bokkaale ak misaalub ku bokkaale wu mu joxaat ñu beneen misaal bu leer nañ mu ne kii bokkaale bu ma leen doon melal ni mu mel mu ne mu ngi mel ni yaa yaa ko jël naaw ak moom ci asamaan dem ba ci kaw dal di ko sànni benn picc dal di ko këf wala ngalaw dal di ko ëf jëmale ko ci biir pax mu ne li muy yëg ak ñàkkaa dal gi muy ñàkkaa dal mu ne loolu mooy bokkaale kat mu ne bokkaale kat foo ko gis noonu la mel ndaxte yaxtabuuna kulla shayhatin alayhi humul adu fahdarhum qaatalahumullah mu ne foo ko gise mu ngi tiit bu xëyee tuur ndox mi fii laal ndomb yi fii joxoñ fii làmb lii tuur fii lu ne dina ko def yuurlu ndax nit a ngi ñëw mu seen ab góor mu delluwaat ba seen ab jigéen dal di delluwaat léeg-léeg mu taxaw rëdd fii joxoñ fii lu ne dina ko def te ku mu dajeeg nga xool ko bu baax sa mu ne xaw ma lu ma diw di xoolee subta hakada li ko waral mooy ma amana billah waaye ki nga xam ne ku gëm yàlla la bu jógee mustaqim day dal di génn rek dal di taxaw bu dee këram lay génn jiital ne jooram bismillah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah gis nga xolam dal di teey dal di dal yoonam nekkul góor la dajel wala jigéen la dajel wala xale la dajel wala mag la dajel ndaxte xam na ne loolu musuhi amul benn faida ki am faida mooy rabbu samawati wal ardi moom mooy kii doxal moom mooy kii def lu ne moo taxoon mu neñu lan yusibana illa ma kataba allahu lana mu ngi ci biir dënn bi dara duñu jot lu dul li yàlla bind ci ñun loolu dong la kon misaal yu leer yii borom bi subhanahu wa taala wàcceel nañu ko ngir ñu yëg ne tawhid dara melul ni tawhid moom rek ngay dal di fanaan amuloo dépense mu wóor la ne suba xale yi bu ñu xëyee du ñu ndékki boo moytul sa nga biddal kooku hada tawhid mooy mel noonu nga génn rek dal di romb ab taaxaarub xaalis nga jël ko nga def taalif bind ba pare ku leer ne nangam day mun naa seet si fii nangam ak nangam hakaza xam nga kii loxom du dugg ci biir postal di jëndi fa ne abadan hakaza li waral loolu innahu tawhid kon looloo gën a màgg ci li borom bi subhanahu wa taala digle moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale ko lu tolloog fukki at waaye ñun nag léeg-léeg dañ koy def fil xaabish dañu yaakaar ne tawhid moom mooy ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah lu la neexati nga dal di def loolu la ñu yaakaar ne mooy tawhid borom bi subhanahu wa taala mu ne déedéet de du loolu de dañ ko war a jàng seet ko settantal ko natt ci suñu bopp sonnal ci suñu bopp ngir ñu jot ko yàlla nañu ko borom bi subhanahu wa taala defal mu ne tawhid boobu liñ ci jublu mooy lan ifraadullahi bil ibada mu ne mooy wéetal yàlla ci jaamu ko yàlla li nga koy defal doo ko defal keneen toroxlu li nga xam ne moom ngay def ci kanamu borom bi subhanahu wa taala amoo sañ-sañu geesu amoo sañ-sañu wax buñ la waxee doo wuyu ni ngay tekkaarale ci kanam borom bi subhanahu wa taala foo ko def ci keneen ku dul borom bi subhanahu wa taala dina fekk bokkaale nga ndaxte jox nga mbindeef li nga xam ne yàllaa ko moom yàlla daa am lu mu moom ci yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam togg na benn sahaabi allahu alam mumkin muaz ibnu jabal naam mu ne ko yaa muaz أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال الله ورسوله أعلم ñuy ànd mu ne ko waaw yow mu ànd est ce que xam nga àqub yàlla ci jaam yi est ce que xam nga àqub yàlla warlul boppam jaam yi moom ko ci moom borom bi subhanahu wa taala moas ibnu jabal ñu ne loolu kay yàlla ak yonentam ba moo ko xam mu ne ah àqub yàlla ci jaam yi nag mooy an yabuduuhu wala yusriku bihi shay'a an yabuduhu wala yushriku bihi shay'a nañu ko jaamu te duñ ko booleeg lenn dara kooku moom boo ko defee rek jox nga yàlla àqam waaw léegi nag yow lan mooy sa àq mu ne sa àq mooy an laa yuaziba man laa yushrik maanaa tawhid bokk na ci njëriñam li li ñu leeral ci xadis maanaa këpp ku génn aduna ñeen fukki doomu aadama yudul bokkaale bokk ca ña ko jullee borom bi ne ma yërëm ko bu ñu yaakaar nag lu yomb la ñeen fukk arbaun ñoo xam ne duñu bokkaale abadan ñoo xam ne tawxid bu leer ala aqidati salafi saleh ñuy jël kitaab allah wa sunnati nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne ñooñu buñ la jullee rek ñaanal la allahumma axfir lahu wa arhamhu yu daldi la ñaanal rek allahuma baid baynahu wa bayna xataaya kama baadta bayna almasriqi walmagrib borom bi ne nangu na nangu naa jeex na xalaas kii yërëm naa ko jéggal naa ko kon gis nañu tawhid kon nag nañu góorgóorlu ku nekk am tawhid boo xam ne danga nekk sababu borom bi subhanahu wa taala yërëm keneen ku dul yow naam ibaada am nañu ko taarif ñu ne mooy atazallul wal xuduu atazallul mooy toroxlu wal xuduu ak nangu toroxlu ak nangu jikkob gëlëm gëlëm nga xam ne lu nit tuuti tuuti day jàpp xëcc mu topp nga ne ko tëddal mu dal di tëdd jogal mu dal di jóg te ni mu la ëppee doole ni mu ëppee sañ-sañ ni nga xam ne noonu la kàttanam tollu waaye gis nga ni ko borom bi subhanahu wa taala def ba mu wommatul la yow li nga bëgg léeg-léeg mu bañ a tëdd nga dóor mu tëdd bu ko neexoon bu bañoon bu ko neexoon rek mu yóbbu la àllaaxira waaye borom bi subhanahu wa taala daa am num ko taggee num ko tàggatee kon loolu mooy jaamu borom bi subhanahu wa taala doomu aadama noonu la war a mel ci kanamu borom bi subhanahu wa taala gannaaw jaamu yàlla moo gën a màgg te jaamu yàlla boobu mooy tawhid ci li yàlla digle kon lan moo gën a màgg ci li yàlla tere kon mafhumul muxalafa bi dinañ ko xam mooy bokkaale gannaaw tawhid moo gën a màgg wéetal kon nag safaan ba moo gën a màgg ci tere moo tax mu ne ñu wa aazamu ma naha anhu ashirk li gën a màgg ci li borom bi subhanahu wa taala tere itam mooy shirk shirk boobu nag mooy lan mooy daawatu gayrihi ma mooy jaamu keneen ku dul yàlla boole ko yàlla nga leen di jaamu ñoom ñaar shirk boobu nag ñaari xaaj la ashirkul jali wa shirkul xafi sirk bu leer bu ñépp xam ne sirk la koo xam ne samp na ab xërëm moo xam xërëmam boobu nag lu ñu yett la wala xeer bu ñu teg la wala garab gu sax la wala ab néeg bu taxaw la wala ab bàmmeel la wala doomu aadama bu taxaw la ndaxte yépp mun naa nekk sirk ndaxte ki nga xam ne itam moom moo taxaw ci sa kanam gëm nga ne sa lépp mooma ah kooku def nga ko palaasu yàlla sa lépp mooma sab texe sab texewat yépp mooma sa am ak sa ñàkk lépp mooma sa ajanaak sa lépp mooma kon kooku jaaltahu niddat kooku def nga ko moromub yàlla moo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu jàngee aaya bi borom bi subhanahu wa taala di wax ne lii nga xam ne mooy alyahud ak nasaara ñoom dañu jàppoon seen borom xam-xam yi ak seen jaamukatu yàlla yi ñu def leen ay yàlla yani ittaxadu ahbaarahum wa ruxbaanahum arbaaban min duunillah ñu def leen ay yàlla bàyyi yàlla maanaa adi radiallahu an booba duggagul ci diine bi mu ne yonent bi ah déet déedéet ñun defuñu leen ay yàlla de abadan loolu moom amul defuñu leen ay yàlla yonent bi ne waaw est ce que duñu leen digal ngeen def ahankay est ce que duñu leen tere ngeen bàyyi ñu ne ahankay est ce que duñu daganal ngeen d'accord ne dagan na mu ne ahankay mu ne est ce que duñu xaraamal ngeen d'accord ne xaraam na mu ne ahankay mu ne wa dalika ibadatuhu loolu mooy jaamu ko di lan ngay defal ab yàlla lu dul loolu defal nga def bàyyil nga bàyyi kon lan la yàlla am ci yow lu dul loolu kon boo ko defalee doomu aadama ci loo xam ne teguwul ci téere borom bi subhanahu wa taala teguwul ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam faqad jaaltahu ilahan kon def nga ko nit koo xam ne yàlla bu ñuy jaamu la rawatina nag su fekkee ne boo pakastaloo woo ko rawatina nag su fekkee ne boo pakastaloo woo ko kooku nag moom dina fekk fa la gën a puré encore ndaxte wóor na la ne même bu faatoo mun naa ñëw xetti li la kon loolu moom loolu yépp cirque la mooy bu mag bi bu làqu bi mooy ngistal yonent bi nag mu ne loolu laa gën a tiit nag ci samaw xeet ngistal di def dara ngir ñu nettali ko rek mu ne bokkaale la borom bi subhanahu wa taala fan la bokkaale duggee fii ndax yàlla taxatul ngay def gis nga lépp lu jëm ci wàllu jaamu yàlla bu yàlla taxul nga def ko rek bokkaale nga yëkkati fii di dimbal nit rek def nii ngir bugg nga ñëpp gis ko ngir ñu nettali ko nga bëgg yàlla taxatul li kon loolu nga jàppoone nag ab sarax la xalaas jeex na borom bi subhana taala mu ne yow bokkaale nga yow bokkaale nga sa jëf jooju màbba naa ko kon nag li gën a màgg ci li ñu tere mooy shirk mooy jaamu keneen ku dul yàlla boole ko nag yaa ngi jaamu yàlla dalilam mooy waxu borom bi subhanahu wa taala ne waabudu llaha wala tushriku bihi shay'a waabudu llah jaamu leen yàlla bu fa yemoon rek sax mun nañ ciy déggee ne yàlla la wax waabudu llaha mun nañu déggee ne amoo droit jaamu keneen ku dul yàlla waaye nag ngir mu leer mu teg ci dàq wala tushriku bihi shay'a bu leen ko booleeg dara bu xesee ne dara nag jeex na ndaxte doomu adama dara la xeer dara la kuur dara la doj dara la ndox dara la safara dara la te yépp jaamu nañ ko wolis borom bi subhanahu wa taala borom bi nag ci benn hadisul qudsi mu ne bés pénc ah mbir mu màgg mu ngi sama digganteeg doomu adama kat mbir moo xam ne bu màgg a màgg la ñu ne waaw mbir moomu moom mooy lan mu ne ana alladi xalaqtu wa ubida gayri wa ana alladi razaqtu wa shukira gayri mu ne lii daal naqarina ma borom bi subhana taala mu ne lii daal ku ko def rek ma jëflante koog yow mu ne man maa la sàkk ba pare nga bàyyi ma jaamu ji keneen maa la sàkk aar la ba nga màgg dal di ñëw waaye keroog ba mu ganee aduna génn ci biir yaayam rek wóolootuñ ci yàlla foog ñu indi ab paakaat foog ñu indi ak baleeg foog ñu indi ay mbir yu dul jeex foog ñu wooyi keneen koo xam ne moom yëguloon sax mu dal di bind ak def lu ne ngir ñu aar xale bi xanaa fàtte nañ ki ko aaroon ci biiru yaayam ah deret ji du ñëw ndox mi du ñëw tàngoor bi du ñëw kaani bi muy lekk du ñëw te mu ngi noyyi lu ñëw rek borom bi subhanahu wa taala écarté ko indi li nga xam ne loolu dong moo koy jëriñ ba mu génn ci place boobu dal di ñëw nga ne nañ ko defal nangam ngir mu des fi kon kii kay mooy mbir mi mu ne ana alladi xalaqtu wa ubida gayri maa ko amal ba pare ñu jaamu keneen ku dul man ñaareel ba mu ne man maa wërsëgal may la nga dund te baax te tal ko am wërsëg lekk be suur naan be mandi giix ne jërëjëf diw xayyabakallah mu ne mbir mi borom bi subhana taala mu ne akamu maa naqari naqari na ma lool mu ne waaye nag boo ñëwee be be ci man dinañ ko digle dinañ seet waaw yow kan moo la sàkkoon kan moo la defal bët defal la gémmiñ defal la nga tal ko wërsëgal la mbir mi may la sa sago am na ñu bari ñu amul seen sago waaye ba nga lekkee ba suur kay loo soxor loo nay waaye waxal alhamdulillahi rabbil alamin waxal ne maa ngi sant borom bi subhanahu wa taala waaye nag mu bàyyi ma fii dal di sant keneen mu ne bés penc dinaa ko digle ak moom kon yal nañu borom bi subhanahu wa taala woon dëgg ba ñu xam ne lii mooy dëgg mu wërsëgal ñu xol bu koy nangu ñu jaar ci yal nañu woon caaxaan ba ñu xam ne lii mooy caaxaan mu wërsëgal ñu xol bu koy dëddu wa axiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaam والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم بقي نجي سمت برم سبحانه وتعالى ñu baaxee dajale ñu xiwal yu mel nii xiirtal ñu ci mooy téere bii nga xam ne li tax mu jóg mooy leeralal nit ki ak pas-pasam ñu gën koo xamee ci al usulu asalaasa ñetti cosaan yi doomu aadama bi war a bàyyi xel te tàmbalee ci mooy xam sa borom xam sa yonent xam sa diine teg ko ci ay tegtal yu leer yàlla ne na yonent bi ne na ndaxte loolu day dëppoo ak waxu yonent ba borom bi subhanahu wa taala bu nammee cib jaam ak yiw dina ko déggloo diineem kon nit bu xamee boromam xam diineem xam yonentam lépp tegu ci ay tegtal kon kooku mooy ki nga xam ne xam na diineem kon suñu dars bi jàll ñu ngi woon ci mbir mi nga xam ne mooy mu ama am solo te dara jiituwu ko di jaamu borom bi subhanahu wa taala teg ko ci tegtal yu leer di fexe itam di dëppoo ak ña nga xam ne ñoo taxaw taxawaay booba te mu waxoon ñu ne këpp ku wommotu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nangu ne borom bi subhanahu wa taala kenn la mu ne kooku dootul yell ci moom muy dal di soppante ak ña nga xam ne meluñu noona mu ne bu dee anam boobu kon kooku dina bokk ci ñi texe kon mu ñëwoon ak ñun nag bee won ñu ne am na yeneen ñetti mbir yoo xam ne doomu aadama dina ko yittewoo ci li nga xam ne noonu la tënkee téere bi mu ne boo demee ba doomu aadama laaj la mu ne la lan fa ida qiila laka mal usul althalatha allati yajibu ala al insani maarifatuha nit ne la lan mooy ñetti cosaan wala ñetti mbir yi nga xam ne dafa war ci doomu aadama ngir mu xam ko te xamoon nañu baatu wareef mooy ku safaanoo ak moom istahaqa al adaba aw ittaadib ala al aqal dina fekk yeeyoo na mbugal wala yeeyoo na boog ñu yar ko mu dellu si waat kon loolu mooy farata kon xam ñett yi lu war la mu ne loolu buñ la ko laajee mun nga koo tënk ci ñetti baat mu nekk lu yomb faqul nang ko wax ne mooy maarifatu l abdi rabbahu wa diinahu wa nabiyahu muhammadan sallallahu alayhi wa sallam mu nekk ñett yu ñuy foog ne yu yomb la te mu nekk yu jafe-jafe lool mu ne buñ la ko laajee na nga ko tontu ne jaam bi dafa war a xam boromam ak diineem ak yonentam boromam borom bi subhanahu wa taala mu ne boo ko buggee xam ci loo xool rek am na ci kàttan boo xam ne mun na laa gindi ba nga xam ko yonent bi itam woon ñu ne ku bugg a xam borom bi subhanahu wa taala bu mu xelaat ci meloom kon day dal di riir waaye na xelaat ca la borom ba amal moo tax borom bi subhanahu wa taala bari na fum ñuy delloo ci mbir yu mel noonu léeg-léeg mu delloo nit ci doomu aadama qul huwa alladi ansha'akum وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون borom bi subhanahu wa taala mu ne maan maa leen sàkk sukkandikuuma ci lenn laajuma kenn ci sama coobare laa leen amal gannaaw ba ma leen amalee nag ma defal leen dégg-dégg bi ngeen di déggee defal leen gis-gis bi ngeen di gisee defal leen xol bu mun a xelaat mun a bëgg mun a bañ mun a bég mun a mer mu ne waaye léegi yéen li ngeen di xelaat néew na du ngeen ma sant du ngeen xelaat kon borom bi subhanahu wa taala woon na la fii ay kéemtaan yoo xam ne dañ ci war a bàyyi xel mu ne am na loo yëg ci sa yaram te sa sañ-sañ amu ci moo tax bari na fu ñu delloo waat ci suñu bopp wa fi anfusikum afala tubsirun ci sa bopp xol bi ni muy defee mu ne amoo ci benn sañ-sañ deret gi ni muy dawee amoo ci benn sañ-sañ li ngay xam ba pare takk ko dootoo ko fàtte amoo ci benn sañ-sañ li ngay fàtte itam amoo ci benn sañ-sañ kon loolu mooy wone ne borom bi subhanahu wa taala boo ci bàyyee xel rek ci li nga xam ne moom la sàkk rek mun nga ko ci xamee borom bi it wonaat nañu yeneen mbir yoo xam ne amal na ko yoo xam ne ay kéemtaan a ngi ci mun nañu ci jaar xam borom bi subhanahu wa taala dal bi ñu wax ne inna fi xalqi samawati wal ardi wa ixtilaafi llayli wal nahaar la ayat mu ne lii nga xam ne mooy ni ñu sàkkee asamaan mu ne xanaa du ngeen ko seet seetantal kan moo ko aj mu aju rek yem fa du wéy du ñëw mu ne ni ñu sàkkee suuf bu dee ñun ñun ñoo dëkk ci koom waaye moom itam dañ koo aj rek sukkandikuwul fenn mu ne waroo guddi ak bëccëg mu ne lii yëpp ay kéemtaan la waaw waaw war ngeen ci mun a xelaat mu ne yooyu yëpp buñ ci xelaatoon mun nañu gendeeku ba xam borom bi subhanahu wa taala kon li yonent bi wax nañ ci bàyyi xel salawatullahi wa salaamuhu alayhi mooy li borom bi subhanahu wa taala sàkk ci lañ koy xamee waaye ban yoon nag ak yan juntuwaay la ñuy jël ngir xam ko yoon wi wu leer la mooy téere borom bi subhanahu wa taala sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo buggee xamee borom bi feneen fudul yii rek mu ne na nga xam ne jàdd nga lii nga xam ne mooy yoon te boo moytuwul nag lala caay fekk mooy réer waaye du xam ndaxte xam-xam moom mooy ba joge ca borom ba subhanahu wa taala boobu itam nag nooy def ba jëriñoo ko mooy sori bépp ñaawtif looloo tax imam safai rahimahullah doon nañu gindi ci anam boobu di ñu won ne li nga xam ne mooy xam-xam leer la bu joge ci borom bi subhanahu wa taala te leer bu joge ci borom bi subhanahu wa taala mooy katub yàlla yeewoowu ko ci salaf itam imam safa yi ba léegi moom borom bi subhanahu wa taala da koo mayoon mun a tari téere bi mu jël rek day jël jàng rek ba jeexal dëpp téere bi tari na lépp mu dem ba mu yàgg jooytu ne ni mu meloon melatu ko mu dem ci wakiye rahimahullah mu ne ko man daal ni ma meloon daal melatu ko mu ne wakii ne ma bàyyil mooy yàlla bayil mooy yàlla wa sakawtu ila wakia su'a hifdi fa arshadani ila tarki lmaasi ne ba ma demee daal lim ma wax rek mooy bàyyil mooy yàlla ndaxte nit ki buy mooy yàlla rek lii nga xam ne mooy xam-xam dootu ko mun a peeg bu ñu nee xam-xam nag mooy bii nga xam ne mooy waxu borom subhanahu wa taala ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon yoon woowu mooy téere borom bi subhanahu wa taala ak làmmiñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ñoom ñaar ñu ne nii la borom bi subhanahu wa taala mel nii la borom bi subhanahu wa taala tudd lii mooy kattanu borom bi subhanahu wa taala lii mooy jubluwaayu borom bi subhanahu wa taala kon warteef bu njëkk bi mooy lépp lu jaam di yittewoo rek na yittewoo xam borom su ko xamul rek day réeree leneen lu dul borom bi subhanahu wa taala waaye ba mu gendee koo ba xam ne borom bi mooy alxaaliqu almustahiqu lil ibadati leneen lu dul borom bi subhanahu wa taala def lay xam num lay xamee day xam ne maxluqun la yastahiqu l ibada kannaaw ba nga xamee borom bi subhanahu wa taala mooy ki sàkk dal di amal moom dong moo yeyoo ñu jaamu ko leneen lu dul borom bi dañ koy xamaale da ngay xam ne dañ koo sàkk te yeyoowul jaamu kon nga jox ko li mu yeyoo nga jox borom bi subhanahu wa taala la mu yeyoo nga dal di texe ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale woon benn sahaabi ci laaj ko atadri ma haqu llahi ala alibad wa ma haqu libadi ala allah qala allahu wa rasuluhu alam ndax xam nga aqub yàlla ci jaam yi ak aqub jaam yi ci yàlla mu moomale ko jaam yi sahaabi bi ne ko ah loolu de moom yàlla ak yonentam ñoo ko dal di xam mu ne ko nag aqub borom bi subhanahu wa taala ci jaam yi mooy an yabuduuhu wa la yushriku bihi shay'a nañu ko jaamu buñ ko boole lenn boo ko defee rek xam nga borom bi subhanahu wa taala feeg defa goo ko xamaguloo borom bi subhanahu wa taala mu ne ko nag aqub jaam yi itam ci borom bi subhanahu wa taala mooy an laa yu'addiba man laa yushrik bihi shay'a moom itam nag du mbugal mukk na koo xam ne bokkaalewul ak moom lenn waxuma mbugal la waaye dangay nekk sabab sax dootuñu mbugal keneen ndaxte yonent bi ne na ñeen fukk yu dul bokkaale ku ñu jullee nga texe ñeen fukk yu dul bokkaale ku ñu jullee nga dal di texe bu ñu xeeb lim bi nag ñàkkaa bokkaale jafe na ndaxte arriyaau min shirkil asram lii nga xam ne mooy njistal di def dara rek ngir borom bi subhanahu wa taala taxul nga koy def rek mu ne loolu lenn na ci bokkaale kon nag nañu ko moytu mooy tooñ bi gën a màgg kon jaam bi bu xamee boromam rek texe na wa diinahum ak diineem loolu la yonent bi leeraloon mu ne ki nar a fexe mooy ki xam diineem ki nar a fexe wadi mooy ki réeree diineem kon li doomu aadama bi war a jiital moom ci boppam mooy xam naka lay jaamoo borom bi subhanahu wa taala moo tax ñuy wax ne awalu ma yajibu ala almukallafi tasxiixu imanihi mooy li mu junj fii maarifatul abdi rabbahu lu mu ciy teg ثم معرفة ما يصلح به فرض عيني mu xam itam na muy defaree maanaa warteef bi nga xam ne moo ko jagoo keneen munu ko koo defal loolu mooy li mu ñaareelee fii wa diinahu loolu mooy xam sa diine ndaxte boo xamul diine ji mbir mi du sotti diine nag nuñ koy xam diine itam nañuy xamee borom bi subhanahu wa taala moom nag moom noonu la ñuy xamee diine mooy ne borom bi noo bëgguñu jaamoo la mu ne nii ak nii laa bëggee nañu ma jaamoo loolu mooy xam sa diine leneen lu dut loola boo ko defee moom la ñuy tuddee bidaa wala ñu tuddee ko muttabiil hawa imma ñu tuddee ne da ngay sos ci diine ji lu ci bokkul nga buggoo jaamoo borom bi subhanahu wa taala noonu wala ñu ne da ngaa topp sa sago lu la neex rek yaakaar nga ne loolu mooy diine kon loolu itam ñu bàyyi ci xel bu baax a baax ci lii nga xam ne mooy xam sa diine kon xam sa diine jooju dina laaj ñu yittewoo ñaari mbir benn bi mooy masdaru tashri beneen bi mooy alqudwa mooy fan la ñuy jëlee diine loolu moom benn ci ñaar yi dong la ñuy jëlee ci diine te ñaar yooyu mënuñ leen a teqale mooy téere yàlla bi ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon foog ngay jëlee sa diine benn ci ñaar yi ñaareel ba al qudwa royuwaay boobu nag ñaar la royuwaay bi nga xam ne roy ko mu jëriñ moom kenn ci la mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam beneen bi mooy diine jooju nag nga xam ne yow dañ koy tibbee ci quran ak sunna ku la koy leeral ko muhim jiddan yani min man taaxudu diinak kan ngay jëlee sa diine loolu moo taxoon ñu ne diine bii amaana kóllëre la kon war ngaa settantal kóllëre bii ku la koy jox foog nga dal di ko settantal dal di ko seet al ulama jazahum llahu xayra leeralal nañu ci benn doxalin mooy ñi nga xam ne dañu doon màngee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ leen doon diraasa boo teeweewul jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo nekkee ak sahaabi yi nag ñu ne kooku jarul seet jarul seet tantal kulluhum udul ndaxte borom bi subhanahu wa taala moo leen tànn ngir ñu feggoo ak yonent bi aaral ko diine ji duñu ko yokk duñu ko wàññi dañu jox ko xeet wi borom bi subhanahu wa taala dal di ko leeral bu baax a baax min almuminina rijal sadaqu ma ahadu llaha alayhi minhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir li ci gën a am solo nag mooy wa ma baddalu tabdila kon borom bi subhanahu wa taala tazkiya na leen maanaam leeral na ne ñoom ngir yàlla dong moo taxoon ñuy def duñu yokk duñu wàññi mu ne ñi gëm day am na ci ñoom ay jàmbaar am na ci ñoom ay góor am na ñoo xam ne sax jot nañoo wuyu ji borom bi subhanahu wa taala ci kaw njàmbarte googu am na ci ñoom ñoo xam ne wuyooguñu borom bi subhanahu wa taala waaye ñu ngi wéy ci njàmbarte googu waaye li gën a am solo mooy soppi yi ñu jalgati leen kon ñii ñooy ñi nga xam ne ñooñu indil diine ji gannaaw ñooñu la nag duñu seet kenn ci ñoom ñépp borom bi subhanahu wa taala mu ne ñu baax lañu ñu jub lañu waaye gannaaw ñooñu nag foog ñu dal di seet loolu moo tax salafu saaleh ñu ne ci njëlbeen bi booba ñi nga xam ne ñooy kibaaru taabiin mooy ñi jàngee woon ca sahaaba ya boo ne yonent bi dina duñu wax dara waaye ba ñu demee nag bi ay kuréel sosu ñi nga xam ne ñooy alxawaarij ñi nga xam ne ñooy alchia al alqadariya ku ci nekk nag commencé bëgg a dëgëral la mu gëm ci alquranul karim du nangu soppi ñu daal dinañ jëm ci ñi nga xam ne mooy sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam salafu saaleh jàngal ñu nag ak yoon kenn ci ñoom bu waxee ñu wax ko ne sammi lana suyuuxaka waaw tuddal ñu sab sëriñ bu ñu tuddee sëriñ ba rek ñu xam ne xadis bi dinañ ko jël wala duñ ko jël ci fii la ñu amee xam-xam bi nga xam ne mooy jarhu wa taadil ku nekk rek na mu mel ñu dal di ko bind wax ci moom ku ne bu dee borom bidaa la ñu ne ah kii dee borom bidaa la bu dee borom bidaa boo xam ne mun nañu jëlee ci ñoom ñu ne borom bidaa la nag waaye bu lay jàngal moom du la woo ci ab bidaam moom daal mu ngi yore ab bidaam nekk ci waaye du woo kenn nag ci bidaa ba ñu ne kii nag kon bu la joxee mbir moo xam ne wootewul ci bidaa ba kooku mun nañ jàngee ci moom mun nañu jëriñoo ci moom bu dee day joxe bidaa ba nag ñu ne la kooku moom moytu ko sum ñu ne kooku ab dakar la yore kon bu dee ab fenkat it ñu wax bu dee mos nañ koo duma itam duma sharia ñu dal di la wax feeg tuubam leerul rek du ñu dal di jël ay ahadisam wa kadalika nag loolooy wéy ci jamono kon képp koo xam ne itam ci moom ngay jëlee sab diine war ngaa settantal borom bidaa la bu dee waaw mu ngi woote jëme ci bidaa ba bu dee waaw bàyyee ko ab xam-xam bu dee borom bidaa la waaye du woote jëme ca bidaa ba mun ngaa jël xam-xam bi alal xadar nag nga dal di fogaru bu baax a baax mbaa du ci dugalaale dara bu dee itam nag safaan ba nga dal di seetu moom li muy wax dégg na ko wala dégg ko kon ci mbir moomu lañuy tibbee lii nga xam ne mooy diine ndaxte gannaaw yow ci sa bopp mënoo koo tibbal sa bopp ci alquran ak sunna foog rek am keneen ku la ko leeralal kon keneen kooku dañ ko war a settantal dal di ko seet bu baax a baax salafu saaleh ñoom ci anam googu la ñu nekkoon ndaxte ñoom ñu ne duñu sàgganee nañuy jaamoo borom bi subhanahu wa taala ndaxte suma xamoon ñu ne loolu du jëriñ boromam bis penc kon nit ki buy jaamu borom bi subhanahu wa taala ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngalee la war a mel ala basira moom mu ne dañ ko war a teg ci xam-xam bu leer nga xam ne tik ci sàkk amu ci ndaxte borom bi subhanahu wa taala duñ ko jaamoo lii nga xam ne mooy sikki sàkka kon ci anam googu la ñuy gis ne amuñu beneen yoon bu ñuy jaamoo borom bi subhanahu wa taala lu dul li yonent bi sallallahu alayhi wa sallama dal di tëral ludul ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallama jàngalee jàngale boo xam ne bu leer la boo xam ne kenn du ci weerante ne lu yeyoo topp la am déet ndaxte lépp lu aajoo leeral moom leeral na ko lépp lu aajoo woote nit ñi ñu jëm ci woona ci nit ñi lépp lu ñuy xupp nit ñi ngir ñu sori ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallama jàngale na ko kon nag ni ñuy déggee mooy diine ji kenn mënu koo dégg xamoo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xamoo dund sahabatul kiram boo ne da nga koy dégg nag yoon woo ko bugg a déggi yoon woowu du nekk yoon woo xam ne wu mucc ayib la kon loolu moo tax umar ibnu alxataab radiallahu an doon na faral di wax ne mu ne diine jii daal ku la ne mun na koo dégg te xamul ceddo ga mu ne dina fekk nax na boppam diine jii bu la nga koy dégg rek da ngay xam ceddo ga nga moytu ko nag xam ne lii mooy diine kon ceddo googu nag mooy ci lan la umma bi nekkoon ba ñu yónnee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu daldi leen ko tere seen anamu dundin lii nga xam ne mooy diine nag lépp looy jëf rek mun nga koo dugal ci biir diine mu nekk jaamu borom bi subhanahu wa taala moo xam lekk la moo xam solu la moo xam nelew la moo xam jëf la wax la noppi la looy def rek bu la neexee nga dugal ko ci biir diine ñu bindal la ci ab yoon loo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xool sahabatul kiram bem yàgg mu ne leen yéen daal wa fii bud'i ahdikum sadaqa mu ne gis ngeen nit de ci sëy ak soxnaam rek mu ne sarax sahabatul kiram ne yonent bi déet waaw nit ki dab bannee xam ñu bindal ko sarax bindal ko yoon mu ne waaw waaw kooku nag loolu mu jëf bu ko jëfoon feneen fu dul soxnaam a alayhi wisr mu ne ndax dinañ ko bindal bàkkaar ñu ne waaw waaw dañ koy bindal bàkkaar kay kon mu ne kay ki ko def ku dagan kay moo yeeyog tiyaabo loolu moo ñuy won ne jaamu borom bi subhanahu wa taala loo bëgg rek mun naa nekk jaamu borom bi subhanahu wa taala waaye nanga ko teg nag ci xam-xam ñetteel ba mooy xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax nit ki mun naa dégg diineem te xamul ki nga xam ne moom lañ ko royloo loolu day nekk lu jafe moo taxoon borom bi subhanahu wa taala boole ko ngëñ mu ne ñu falaa wa rabbika maa ngi gëñ ci sa borom yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñii daal kenn ci ñoom du mun a gëm du mun a jaamu man lu ma nangu lu dul mu déggal la te wéyale ko nin ko attee ak nin ko jàngale te du am lenn lu muy yëg ci biir xolam li nga jàngale daal looloo koy gënal leneen lu dul loola moo tax borom bi subhanahu wa taala leeralal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne nañu leeralal ne kenn ci ñun nag duñu ko nangul ak jaamoom ak i pas-pasam lu dul ngay bégee la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indi lu dul ngay bégee la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indi feek am nga loo ciy nangoog loo ciy bàyyi loo ciy bégee loo ciy mer mu ne bu yeboo nga xam ne lasta muminan yow mii amaguloo lii nga xam ne mooy ab ngëm kon yal nañu ko borom subhanahu wa taala defal loolu itam dinañu yóbbee ci waxu umar ibnu alxataab bi mu jëmale woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko yow yonent bi daal tey fi ñu toll daal yow daal yaa ma gënal ku dul sama bopp mu ne ko ah umar ba léegi gëmagoo ba léegi gëmagoo mu ne yow daal yaa ma gënal sama bopp mu ne al aana umar léegi nag iman ba mat na kon nag nit ki bu la gë- gënalee dem ba mu gënal la sa bopp kon lu mu tuuti tuuti kay war ngaa yitte woo xam ne mooy kan war ngaa yitte woo xam lan la doon digle ak lan la doon tere war ngaa yitte woo xam naka la doon dundee lan la doon bégee ak lan moo doon tax mu mer kon moo tax mu ñettelee fii wa nabiyahu muhammadan sallallahu alayhi wa sallam kon su fekkoon ne la ñuy tuddee al wasila ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu fekkoon ne borom bi dina ko nangu mu nekk alwaasita maanaam yéeguwaay bi ngay jaar ba àgg borom bi subhanahu wa taala kooku mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ndaxte mooy jëmmam ndaxte ab jëmm du nekk ab yéeguwaay yéeguwaay day nekk la lay won la borom ba daganal ak la mu xaraamal lay bégal borom bi ak